ñu sante yàlla julli ci yonante bi sant suñuy ñaari waajur tey dañ fi daje woon di def point de presse pour ñaaw ñaawlu li nga xam ne moom la président Macky Sall def muy le report des élections ñuy xamal ni ñu ngi gërëm suñu ay député député taxawu Sénégal yi nga xam ne ba ñu demee ci assemblée nationale xeex nañu def nañ la leen war def nañ la leen fa yóbbu woon ñu di leen ci gërëm di leen ci sant di leen wax ni noonu rek la nit ni sa leader mel rek noonu nga war a mel ñuy wax ni fii ci département Rufisque ñun ñu ngi suñu campagne bu baax a baax a baax ñu ngi def suñuy porta à porte continuer di def suñuy campagne di dem di seeti ñu ñu war a seeti parce que élection dafa war a am le 25 février te dafay am le cinq février ñuy xamal Macky Sall que ni moomul dëkk bi moomul nit ñi def fi ñëw remplacer ay nit fekk fi suñu constitution constitution bi biñ koy defar boobu moom lu ndaw la boobu doonul dara kon tey bu ñëwee nit ñi xeex moom dafa war a rappelé wu 2011 bii nit ñi di xeex. Mm-hmm. dafa war a rappelé wu ni ay nit danoo dee moom mu doog a falu dañoo xeex ba sonn jël nguur gi jox ko. te ña taxoon nit ñi di xeex ma si lim fa Ousmane Tanor Dieng mm-hmm. amul lu mu si dajul ñu xeex ba moom mii 2012 ñu teg ko ci nguur gi kon ñuy xamal Macky Sall que ne le département de Rufisque coalition bi nga xamné mo fi gëna majoritaire mo am fitu dox ci dëkk bi mo am fitu mobiliser te du jënd nit du abani du luwe nit coalition bobu moy wax tay ni dañuy camp continuer suñu campagne te dañuy dem élection le 25 février ñi xamal Macky Sall nak qu'à partir du 3 avril nekkatul président de la république porte la duggé na ñaan yalla génné ci porte mais duggee si bunt génnee si paranteer bu mu ko ñaan yàlla ndax ñun duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba ñuy ñaawlu di métitlu Walfadjri mi ñu nangu rece licence am parce que Walfadjri ñun man damay naan wal Walfadjri moo daaneel parti socialiste mhm. ndax musigu Walfadjri boobu man dama bëgg ñu rëkkal ko Macky Sall mu abal ñu parce que musigu Walfadjri boobu man tax na depuis mille fu ma déggee musique boobu sama fit bi day rëf ndax 2000 musique wal fajri boobu moo ñu wàcc woon wal fajri moo fal Macky Sall si ñii fal Macky Sall la bokk kon wal faj Macky Sall la warul nangu seen licence nañ leen delloo seen licence parce que foofu ay famille ñoo fa ay papa fa ne ay yaay ñoo fa bu ñu leen di fay cinquante mille francs par mois sax dañ siy dundal seen njaboot kon seen licence boobu ñu dindi nañ leen ko delloowaat ñun nag ñuy ràpp àll këni ñun ñooy coalition bi gën a mag fii nag si département Tëngéej dana tëgg élection yi vingt cinq février incha allah ñun dañuy gagné département de Rufisque ñuy gërëm nag suñu honorable député maire docteur Omar mi nga xam ne sonnul guddi sonnul bëccëg heure bu nekk mu ngi nekk ak ñun dina diñu teetee diñu wan yoon kon yéen waa xalifa président bi ne fii dama ne bu ñu génnee fii tey na woon fa woon nañu delluwaat ci base bi chaque jour ñu ngi ci base bi te duñ dajee kenn kon nañu leen continuer di massifier des suñu ay porte à porte élection fay am té inshallah Khalifa ababakar Sall day gagné le 25 février inshallah ndax nak sunu candidat dafa ne l'eau l'humain la terre. muy nit ko xam état fi Sénégal kenn mo fi meuna remplacer Macky Sall muy Khalifa ababakar Sall kon nak ñun ñone ne ñu report élection ñu que ni élection du am. lu mu leen jaral dinañu jaral lu ko raw ñu ngi woon ak société civile du opposition bi yëpp pour ñu ànd ñu gëm suñu bopp ñu xeex li nga xam ne moom la Macky Sall di def mooy ñag dàq élection moom dañ ko bàyyi woon mu falu na bàyyi keneen falu àdduna na ku ragal sa ndono sa deewin ñaaw merci